sëriñ Tuubaa noonu lañuy tooge maanaam yonent bu mës a ñëw yàlla bu lay yónni ci saw xeet lool lu mat a dégg la daf lay yónni nga doon doktooru xol yi ak xel yi ak ruur yi fi feebar nit ñi nekk ci jamono boobu saw melo moo koy faj si sëriñ Tuubaa nag léppam yàlla la moo tax xalifaam yi fiy toog khalifa bu fi tok rek so xolé melam di nga xam melo jamono ak febar yi nek jamono ak nim mu daje xolu nit ñi di nga xam lan moy febaru nit ñi serigne muntaha ko ko xol di nga xam ne di nga xam lan moy suñu febar fim nek nekk lay faj si loolu ku fi nekkal serigne Touba mourid bu xëy rek fokk nga ne yàlla na fi yàgg te wér xam nga lu tax sa bopp ngay ñaanal ndax moom li ko indi mooy tawat ji ci yow la bañ nga teew ko ci sa kanamu borom ndax boo ko teewee ci sa kanamu borom dara du ko jot kon sëñ taxa teew maanaam doon gi mu doon Sëriñ tubaab fi mu nekk ni nañ ko jàngat bu baax tey diglu ay waxam tey xool ay jëfam tey fàttali ko ay kàddoom te bañ koo yéem mu mel ni nag wax na kàddu yu bari yoo xam ne waras na ci jànge lu bari nit boo gisee ñuy waxtaane Seex Ibra weesu nañu fi mu nekk nii di ko yiim gis nga doom aadama li gën ci moom mooy nga xemmem loo ko sëriñ bi xemmem loo ko jëfal sëriñ bi xemmem loo ko bàyyee sa bopp sëriñ bi moo gën nga di ko xupp wala nga di ko xas wala nga di ko wàññi doomu jëf ju mu jëf ci kaw xemmem rek ci lay amee payub suñu borom kon li ñuy waxtaane yépp ñiy soññeeg ñiy wax yépp ku ci soññeeti wala ngay wax na nga xemmem loo nit ñi jëfal sëriñ bi da nga leen koy xemmem loo ni Cheikh Ibra xemmem woon jëf am na ñoo xam ne jëf li muy diis limi métti métti limi laaj laaj jaayante am na ñoo xam ne dafa neex ci ñoom ñooñu ñooy murit soo demee ba roy Cheikh Ibra ci jëfal sëriñ Tuubaa neex ci yow dàq ci yow lu dul jëfal sëriñ foofu la ab murit war a yóbbu boppam kon nag dafa am loo xamante ni li fa la ñu war a tàmbalee jamono bi defar suñu xol yi dafa jot waxuma gëm sëriñ bi loolu def nañ ko ba nopp sunu xol yi lañu war a defaraat defar sunu xel yi defar sunu jikko yi sàmm sunuy cër ba mën a doon jëmm joo xamante ni yi ku ko gis xam ne li sëriñ tuubaa doon wax ab dan suruura li kulli ra'i bokk nga ci jaam boo xam ne ku la gis bëgg loolu yombul de ñun murit du tariixa tariixa lañ ko mën a woowee waaye li Sëriñ Tuubaa liggéey ak lim def loolu du tariixa ndax tariixa yëpp daf leen tàbbal ci biir tariixam ne tawaytu tariixal xaw mi waxtam tidaahihi kon loolu dootul tariixa tariixa yëpp la ëmb wali xat xalal xaajaati bi rawdi wal basti kon murit mooy lan murit mission la murit mission la murit du ak toppe kese fan yii maa ngi wax benn murit boo xam ne bii na ko murit yëpp fàttaliku yàlla na ko yàlla yërëm muy sëriñ naar ngeer bi dëkk monsa def na ci yoonu murit loo xam ne benn murit defagu ko ci yoon bi xam naa boo ko waxee ñu ne ah si njega lu muy wax naar ngeer Monza la nekkoon ci wetu Milan waaye daf fa jóge tubaab yi dajaloo nelaw na de tubaab yi dajaloo ne nañu tudde naar ngeer benn mbedd fii ci monza moodu moodu bu ñëw jàngul tubaab amul métier waaye yor jikko ju rafet di murit dëgg ñu koy wax naar xasida dama bëgg nag ngeen déglu li may wax ndax sëriñ bi kat nuy jang mbind mi te ñu mbind mi mom lañuy wax le corps et le texte tubaab bi nee nañu bi yi dañoo yewu de jang ni man ak ñepp nañ ko deg tubaab bi nee sa jëm yow sa bop na nga fexé ba li nga tim di ko bis bu nit xamé li ñuy wax ci li ngay jang bo ba légui la na xamné mi ngi yow deug la kon nag murit mission la naar ngeer dañoo daje tubaab yi daje tudde ko ab mbedd mbedd mi xam nga lu ñu ci bind xasida naar mu wóor leen neen kooku loolu moo taxoon sëriñ tubaa andi ñu fi wan ñëpp ne li mu yor kenn yoru ko lakkal wara waliya xutta xayrahu di fi la de taxaddi la yàlla yaa moom bindee fi waaye jox nga ma ñi ci gën ku gënul rek na la wóor ne da nga bokk ci train bi di dox rek waaye bokkoo ci ñi nekkal sëriñ bi na na leer de lakkal wara sëñ tuba waxul fenn ne moo moom bindee fi dana yàlla lakkal wara yaa moom bindee fi waaye nag wal yaqutta xayrahum wali siwaa naxwiya suxta dayrahum waaye ñi ci gën jox nga ma leen léegi nag nan la nan ngay bëgg tuddo sëriñ bi sëriñ bi wax ni ñi gën lama ma yàlla jox te ngay yees loolu ab laaj la kon foo nekk danga war a fexe ba naar moomu noonu mu def ñu tudde ñu fi ay ay ay banque tudde ñu fi ay ay ay dëkku lëmm tudde ñu fi ay doom Cheikh Ibra Fall Babal Mouridina benn commandant de l'armée française tudde woon na ko doom lu tax ak ni tubaab yeewoo tuddi Cheikh Ibra doom kon buñ jàpp ne ab murit jëfam mooy jóg rek ñëw ku mën a nax nax la buub xaalis dem déedéet li ñu yëkkati mooy wane jaari ci sëriñ tuuba wane ne lislaam moo gën lépp looloo nu fi andi de gaay keneen ku leen wax dara loolu andiwuñu fi sëñ Touba soxlawul lii ñuy xëccoo yéen ñëpp xam ngeen ñun ñëpp nañu fexe balaa ñuy ànd ànd bi ngeen di wax naan daayira fédération yooyu yëpp balaa ñuy ànd nañ góor góorlu ba kenn ku nekk ànd ak sëñ bi ci sa jëmm ba noppi ak ci sa jikkoog sa melo ndax kat ñaar ña ñëwoon ci sëriñ Touba ne ñun ñaar ñi kat dañoo juboo lool mun leen baa jub ngeen gars yi ma da leen di laaj ñu jubul bëgg ànd nu muy sottee keroog wax naa ko Barcelone sëñ Assane ne ma mooy wax ji kenn ku nekk yow yaay fexe ci sa bopp njub gu tax soo àndeek sa moroom ànd bi yàgg ndax nit ñi dañ fi ñëw naan nañu ànd rek ñu jubul bu ñu àndee du dem daa war a leer de ku leen wax ne ànd leen ngeen bëgg ànd ci kaw kenn ku ci nekk yor saw melo yor ci sam xel jikko ju dul jikkoy sëriñ bi ndax sëriñ bi waxoon na ne ñu bari daañ ma wuy si waaye duñ nangoo tàggoog seeni jikkoy maam jafe-jafe ngoog te sëriñ bi dafa bëggoon ku ñëw mu defar la ba fa nga dellu nga gën fa te loolu la def boo gisee seex yi nit ñi daan leen topp loolu kese la de dañ lay defar ba nga gën ruu yi duñ la mën muñ ñu topp nga defar leen kon nag li nga xam ne moom lañuy tàmbalee tey mooy fexe ba leeru ngëm tàbbi ci sunu biir bañ a nekk sunuy làmmeñ ni Cheikh Ibra Fall Baabul na kooku loolu lay jàngale Cheikh Ibra jëfam yépp day wane aw yoon te maa leen di xamal ne lii lii mooy fondement murit leeru gëm na jëkk a toog ci sa xol ba noppi leeru gëm googu di taw tawhiid muy dem ci say cër saa boo jëfee rek kennal yàlla saa boo waxee rek kennal yàlla saa boo doxee rek kennal yàlla loolu mooy mission murit sa jëf yëpp yàlla tax sa wax yàlla tax looy def rek yàlla tax bu ko defee dafa am li ñuy wax tàmpet dama bëgg waxte tey yi lu ñëpp teew lu déglu ko mooy li ñuy wax cyclone ci tubaab mooy càll meeru géej nga xam ne day nekk ci biir géej gi di wëndeelu buñ ko déclaré ci dëkk dëkk ba kenn du am jàmm te jaaru fa ba jàll te bindeefu suñ borom la de waaye loolu yëpp suñ borom da ciy fàttalee ñu ne calmeer boobu calmeeru géej gis nga Amérique li ñuy am am doole bu calmeer bi jógee dañ koy gis xam doole ji xam kañ lay ñëw waaye dara lañ ko mënul càllmeer boobu day misaal jullit yi ne seytaane léeg mu jékki-jékki wundeelu laxas lu bari ci biiram daw jëm ci ñu gëm ngir tàggale leen ak seen gëm xam nga loo gis ci àdduna loo gis ci àdduna rek sëñ Cheikh Fall góor nee na ma ak taalibe lay jàngale sëñ tuubaa loo gis rek sëñ Touba dem na ba ne suñu borom dama bëgg ma nuroog lépp looy misaale ab jaam di ko gis sëñ Tuubaa ko bind de lub jaam di gis rek naa doon misaal mi naa ko nuru ba nit ñi xam yaay kan ca boobu bu wëndeeloo nii di dem gis nga ci diggam ci diggam lafane lan ne ci diggu càllameer bi du yëg sax ne càllameer baa ngi yëm xam nga ñun ñoo ngi ci kaw suuf te xamuñu ne suuf a ngi wëndeel hmm? ñun ñëpp ñu ngi ci kaw suuf te fi mu nekk ni ka jëkk wax ne suuf day wëndeelu moom dañ ko rey dañ ne dafay fontoo nit ndekete nit dana nekk ci dara yëngu bu mag wër ko lépp nekk ci teew doo ko yëg càllameer bi ñu ne ci diggu càllameer bi du ñu yëg benn coon te càllameer boobu fa mu jaar dara du taxaw loolu mooy dugg ci biir yoonu sëñ boo duggee ci sëriñ lépp luy lor moo tax nekk ci sëriñ bi te tàmbali ci sëriñ bi te yem ci sëriñ bi ni ko sëriñ Fallou Mbacké doon waxee dafa gën lépp ndax lii la wër yépp mën na yëngu waaye yow ci sa bopp doo xam ndax looloo ngi xam moo nekk ci xolu murit yi fi nekk nii murit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg lu jamono naqari naqari mën nay waxandoog nit ñi waaye du ko yëg lu musiba rëy rëy rëy rëy du ko ragal te it day dalal xelam te it état d'esprit mooy wala saw fa yu'tika ko fa tarda murit boo gis looloo ne ci xolam te loolu ci xolu yonent bi la jóge tab bi ci Serigne Touba sar ci ñi mu gërëm wala saw fa yu'tika ko fa tarda murit bu nekk war na defar boppam ba fu mu xam ne dana am ngërëm dana am li bëgg àdduna dana ko am alaaxira bu ko defee lii ñëw nag di yàq ngëmu nit ñi na fekk nga defar sa bop fekk nga wajal sa bop ba bu ñëwee du la mëna dara ndax sëriñ muntaxaa nee waxna ko ci ay jotaay yu bari bam mu mom jangul jangul yalla dé jangul diiné té ñun mom lañuy tambalé waxna ko ci ay waxtaan yu bari sëriñ muntaxaa nee bam ba mom aduna la jëk jang nekité aduna moy ki kar nit ñi di leen yaxal kon kooku boo ko jàngulee boo jàngee yàlla te xamoo àdduna boo jógee àdduna xañ la yàlla man maa la ko wax waaw ndax dafa am nit yàlla ku waxoon ne man daal fii ma toll nii defe naa ne daal boobu xamul àdduna moo tax sëñ Muntaxa waxam jooju dañ ko waroon def ay livre mooy bi muy déroulé di wax ni mu nar a doxe ak moom fi mu jaar waaye la mujje mooy dem naa ba sëñ Tuubaa ñeewuma ci kenn moo ko wax de ñëwuma sëñ Tuubaa ci kenn ma ne ko kon moo tax mu ne la doxal jiite ku dem ba ñi nga bokkal ñépp ñeewoo ñeewoo kenn ci sëriñ bi moo tax sëñ Tuubaa ne la jiitul sëñ Tuubaa kum jiital ku nekk rek waxtu wi mu lay jiital ñeewoo kenn ci sëriñ bi dana la defar ba doo ñi kenn dañ lay ñeew ci melo ak ci doxin ak ci waxin euh, kooka dafa wax ne moom defe na ne moo kawe ci nitu yàlla yi ndekete waxin woowu sax ñàkk xam àdduna la benn soxna dégg ko ne ah diw moo wax loolu ñu ne ko waaw soxna si def ku neex a gis ku rafet daldi ñëw siyaare si ne ko man ne damaa dégg ni nga toll ci yàlla ak ni nga baaxe ma bëgg laa jox sama bopp àddiya moo tax àddiya yi yenn yi ko ko wëttuwul sama benn jàngkatu xasida bu mag maa ngi ñëw téyel ma foofu jàng na de mën naa wax turum ndax dafa nelaw moo tax du ma ko wax moo ma ko doon nettali jàng na fi barab nit daanu andi xale bu jigéen bu rafet ne ko jox naa la ko addiya sama dooma waaye nee na ma cey sëñ bi sama addiya jooju moo tax yor yàlla te xamu àdduna wóorul mas nga gis ko dajal rek ñu xicc ko cib tànt rek ne la addiya sëñ tuba nga ne cey sëñ bi ñëw na fu mu ñëwee Hmm? nañ nañ teelu bu baax dégg nga waaye nee na ma ndekete ndaw si fexe naa ba mu sëy si waaye ndekete ndaw si réseau yamba bi nekkoon ca dëkk boobu moo ko yoroon xoola ma lool moo tax sëñ Tuubaa ni bi sarfi an maziyaati kay ma taxuuda zimaami li raziyaati hmm? Hmm? bo amé xam-xam te xam-xam bi jëriñu la na la wóor ne bay Cheikh ndjay da bay néna xam-xam nga yar moo seigne touba ne lakin alimtu wa ilmi sawfa yanfauni bi annaha ñu ne ko koy waxal mu ne àdduna zaata maynin fil maqalat lola aduna wax day fet seigne touba néna aduna lum la wan waxul deug te li ko xamal moy dama xam ne li ko tax a jóg mooy ñëw jël lu baax li ma am yépp wëlbati sama nos jëmime ci lu naqari yàlla kon ak taalibe ak jàng xasida ak sikkar ni ci sëriñ bi yépp képp ku koy def na ci boole jàng àdduna ba xam ko Cheikh Ibra Fall gënoon a ci àdduna dafa yew woon ba jaaxal ñépp loolu dinaa ci ñëw xam naa ne nag temps bi mom comme niñ ko waxé du gudd trop wayé ñu wax ci rek li nga xamné ku ko dégg lu mu gatt gatt nga mën ci mu melni ni dafa am ñaari baat yo xamanteni yi dafa am solo moy liñ doon laaj sank di jëmi ci sëriñ bi nit ku nekk war nga sa jëf ni nu Cheikh ibrahim jangale war nga sa jëf nga diko def fu wóor diko jox ku wóor mu ne koy defal fu wóor foo xam ne soo ci tegi ne teggi sa bët di nga xam ne lii fu wóor la jëm te sëriñ seex jëmb yàlla na ko fi yàlla yàggal lu ko waay jox mu teg ko ci loxo ki fi nekkal sëriñ bi kon loolu dara gënu ko wóor daa am ko mas di jàng alxuraan ci kanam cheikh ibra ci ndar daa di ne asee an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asee an tuxibu wa huwa sharrun lakum wallaahu yaxlamu wa antum laa taxlamuun Seex Ibra ne ko bul jàll de ab lijjantee ngi foofu de bu ngeen deete jàng alxuraan bu waxee lu leen jaaxal lijjanti leen loolu soog a jàll kooku moo dégg alxuraan waaye tari téere bi ba mu àgg mu wax ak yow ay yoon laaj la ay laaj xupp la déggoo ci dara nga daal di jàll ne tàllal leen ñu ngi xat ñu wax ñu ne jàng nañu fa junniy kaamil Cheikh Ibrahima ne ko foofu mat naa lijjanti de lu yàlla wax mu ne ko yàlla dane léeg ngeen bañ dara fekk moo gën ci yéen Cheikh Ibrahima ah loolu de doy na waar <laughs> ngeen bëgg dara fekk gënul ci yéen yàlla moo xam te xamu leen Cheikh ne ko loolu da nga koy lijjanti soo ko jàll waaye doo ko jàng rek dem wala gars yi loolu jarul lijjanti jar naa lijjanti de kooku moo mat a déglu Cheikh Ibrahima daan ne ko loola tax ma joxoñ leen sëñ Bàmba ginnaaw léeg-léeg ngeen bëgg te gënul ci yéen ma joxoñ leen ki nga xam ne li gën ci yéen yàlla xamal na ko li xaada maa farra ilayhi naasu fa farra min il mawtu wal xanaas na doomu aadama yëpp liñ daw jëm ci ci lu baax mi ngi àgg mi ngi fii ci man sëñ Tuubaa maa ko yor nee na lu ngeen bëgg ci lu baax rek daw jëm ca mi ngi nii ci man bu ngeen ma fi rombe du ngeen ko gisee fa farra min il mawtu ñaar ñi ngeen gën a ragal muy seytaane ak dee nee na ñaar ñoo ñemewuñu ceex yi Ibra nekk moo tax ma tegtal leen sëñ Bamba wax ko ko ca ndar ne ko kon nag fekk ku yàllay xamal li gën ci jaam yi nga jox ko sa bopp loolu tax man leen jébbalu leen waaye nag ka ma doon wax ka ma doon wax ka waxoon ne moom moo raw ci jaam ñi moom soxna sa da ko ne dama laa bëgg a jox sama bopp mu nangu daan ne suñ boroom ñëw na xam ñu dañoo gaaw ci loolu bi mu ne suñ borom ñëw na ndekete ndaw si wuyu ba gën a mag ca réew ma ñu dendal mooy borom këram kooku nga xam ne kenn ñemewu ndaw si ñëw na ko aw ma borom kër mu ne ndaw si waaw fu say kii mu ne ko mankat kat man na maa maye sama bopp ndax magum jëmm laa mu ne ko wax nga dëgg de ñu may ko ko mu ne ko nag dama lay defal feet ju mag dangay ñëw nag kër ga waa dëkk baa ngi gis waa ji rek di ko xool daal di kii li muy def ndax xam na ko mu wàcc seeg bagaasam am daal di ñëw fanaan kër ndaw si nit ñi naan kii de li muy def kenn xamu ko kii kii de bu xamoon jëkkëri kii xoola kooku ñàkk xam àdduna tax na mu moyloo ko yàlla jëkk ba noppi xaaji guddi borom këram daal di fëgg ca buntu kër ga sëñ baa ngi tëdd kat mu ne ko waaye kookuy fëgg kan la mun ne ko ah, sama borom kër la de mu ne ko ngane lan mu ne ko ah, waaw mooy ñëw noonu te xam nga kan la mu ne ko déet mu ne ko diw la diw mu ngay dégg nga xam ne lim rey ci nit kenn xamul nu mu toll soxna si ne ko ngane lan mu ne ko du yaa waxoon ne nit yàlla yaa ci ëpp legi xam nga nuñu def mu ko waaw ko duggal ci armoire bi ma tejj la señ ma meebu kay ak yaramu neenam dugg ci armoire bi ñu tejj waji ñew bu ci buntu kër gi di fëgg naan ko ubil mu ko eh, ubbiwuma fi neen yow mu ko yaay wax loolu way goor yebuma bay tedd sama lal eh, koka nak mom ci bir armoire ba ma nga tambali di yàq tubey ji ba mu déggee loolu mu ngi tambali mom yëf yi ñew tax nan def ndànk bu baax waa ji daal dugg si daal ne ko yow da yow xam nga ne yow génn góor gu ma yëpp bay taxaw sama buntu kër gi sax amul yow yaa may fonto waaye kenn du ma fonto mu ne ko ah, dama la doon tooñ rek waa jaa ngi dégg de mu ci armoire bi waa ji moom yàq na armoire bi yëpp ba mu yàgg rek ndaw si ne ko eh yow kat diw sa xarit benn bakkan bi la tuddee doom ñëw na fi nee na boo ñëwee bul fanaante wuy si woo ko ndax du jàmm kat mu ne ko waaye ngane lan ah daal di solaat mbub mi daal génn taal oto ba mu riir mu daal di ubbi euh, kii bi armoire bi ne ko meebal say yére te jaar ci àll bi ñibbi saa waaye daal génn meeb ay yéreem jaar ci àll ba di dox ba dëkk bi ak yaramu neenam ba dëkk ba mu jóge moo tax ba sëñ Muntaxa ne àdduna laa jëkk a jàng àdduna dañ koy jàng loolu bi muy wax waxi sëñ Tuubaa doon wax mu mel ni nifaax li ñuy wax nifaax mooy naafiq dafa bari ci gëmm doomu aadama yi te yi bu Ibra waxoon na ne naafiq yi laa doon génn ci lislaam mag Sëñ Bàmb kon ndekete ab murit li mu moytu dëgg mooy nifaax naafiq naafiq mooy lan mooy li yàlla wax ci saar bi rek wa izaa ra'aytahum tu'jibuka ajsaamahum boo leen gisee sa sa jëm seen jëmm dalay jaaxal impressionné la ba da nga naan murid sadiq ngi julli deug ngi ni du gis ngeen fan yi imam bi ñu wax ne baar ba ca koñ ba moko mom te bu aljuma muy bëgg ri nit ñi khutba wa iza ra'aytuhum tujibuka ajsamuhum gis nga nit bala ngay defar sa jëm ba ku la gis tit da ngay defar sa xol ba sa sa borom leer ba noppi waaye col ak waxin ak defin du tax ñu xam ne murit nga Cheikh Ibra nekkul woon foofu wa iza raaytahum boo leen gisee tuhjibuka ajsaamahum te nit ñi li ñu xëccu léegi mooy ku la gis ne ah murit saadixa ngeen di dox waaw murit dañ koy xàmme ci ni muy waaxoo ah déedéet léegi bu loolu jàllee seen jëmm dañ koy defar ba ku leen gis defe ne yàlla ci ñoom la yem wa in yaqulu tasmax li xawlihim ka annahum xushubun musannada suñuy wax nag danga naan kii moom ngëm ci moom la yem ndax poutre yu mag yooyu di téye tabax yu mag yi dafa mel ni seen kàddu noonu lay mel yaxsibuuna kulla sayxati alayhim humul aduw yàlla nee na ñoom ñooy noonu lislaam kon nit bu bëggee génn ci nifaax li sëñ Tuubaa wax ci nafaax ngay dugg nifaax nafaax nafaax mooy lan mooy di joxe te yàlla tax joxe sa jëmm te yàlla tax joxe sa xel te yàlla tax joxe sa xol te yàlla tax te loolu mooy melow Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin kon buñ dee daje ngir waxtaane Cheikh Ibra nañ góor góorlu ba fàttali ko fi mu tegoon tànkam sànq euh, bàyyi Cheikh Ibra Fall mu ngi koy wax fi mu tegoon tànkam mooy baat yi ko sëñ Moussa Ka wax rek yu leer la yaa tax yi mu ko doon wax yaa tax ba nangam am yaa tax ba nangam am yaa tax ba nangam am yaa tax ba nangam am loolu mooy doxinu Cheikh Ibra maanaam jël nit ci lëndëm dugal ko ci leer waaye boo dee ànd ak moom ñi jëkk ànd ak moom ñëpp maral la leen ak seen borom moom Cheikh Ibrahima ba sëñ Daam Abdourahman loo wax na ko ci menenu baaxil xaddim bi muy wax ak sëñ Basiiru mu ne ko Cheikh Ibrahima li mu mën jaaxal na ma ndax moom day fekk ñu jëm ci yàlla fekk ñu jëmul fenn ma boole leen yilif boole leen ci benn ëtt fexe ba ñoom ñëpp ñu bëgg yàlla àgg seen borom sëñ Abdourahmane loo seere loolu Cheikh Ibra kon kat yoonu Cheikh re du yoonu folklore de yoonu laaj yoonu yàlla ñu teg la ca nga tegu ca ba àgg sa borom la ñi jëkk topp Cheikh Ibra yëpp am nañ seen borom kon nag nañu teel a xam ne yoonu Cheikh Ibra yoonu wut yàlla la jëkk na jëkka leer ci bopp nit ñi du yoonu àndandoo nii rek mel ni ay xar yoonu wut yàlla la yoonu laaj yoonu yàlla ñu teg la ci wax la li la koy tax a am wax la li la koy xañ loolu mooy Baay Faal bu ko defee dëggu moo koy lal ak bàyyee sa bopp yàlla ak sëriñ bi nu góorgóorlu ci ñun ñëpp ndax nit day xam li mu bëgg xam li ko koy may xam li ko koy xañ yaa tax ba Abdullahi xaar taxaw ci bunt di fa xaar woyof lu bay lekk daxaar ngir sopp bamb muy joxe benn baat boobu rek doy na conférence ci jëfi Seex Ibra kan mooy Abdoulaye Xaar sëñ Njaga Abdoulaye Xaar mooy kan ah ah doomi Lat ya tax ba Abdullahi xaar taxaw ci buntu di fa xaar woyof lu bay da daxaar ngir sop bamb mi joxe Cheikh ibrahim na a liggéey doomi buur kuy sa bay la jor jog nga jël koko ko ba mu bëkk ni taxaw ci buntu taxaw ci buntu di woyof lu bay lekk daxaar koo xamante ni kii dañ daan xëy ndawal yi gën a baax soxna yi gën a baax moom lañ ko daan tegal di ko tam-tamal ca kaw doomu buur la nga fexe ba muy añee daxaar di ko reere te loolu li ko ko teg mooy say Cheikh Ibra daa jël sopp sëñ Touba jëmbat ko ci xolam ah defarkat baa ngoog de yi nga Cheikh Ibra nee na war nit yomb na waye def dara ci nit mo yombul kat yi nañ ko xam nek fi ku nek addis bu ne nga andi ko tegale ko lol taxul nga mën a def ci nit dara cheikh ibrahim dafa andi yoonu jël dara def ko ci nit mu jariñ ko ya tax ba abdoulaye xaar taxaw ci buntu di fa xaar wayef bu bay da daxaar ngir sopp bàmb mi joxe ya yobbu mbaxan ci xafoor batay doomu lat joora ngog yaa tax ba xol ba dootu fuur ndekete bàyyi faa la nga yaa yóbbu mbaaxaan ca xafoor Cheikh Ibrahima li ko taxoon a jóg mooy lu nit tilim tilim tilim mu fóot ko jox ko yàlla waaye waxuñu nga ne ci biir di gën a tilim hmm? yaa yóbbu mbaaxaan ci xafoor maanaam mbaaxaan bi mu defee sëriñ bi li mu koy def li tax nga xam ne gars yi nañ boole Cheikh Ibrahima ci yëf yi suñ Mor loo daga ne nee lo am am Serigne Touba na nga fexé ba am xaritou Baye Fall mo gëna woor bay Baye Ibrahima Baye Baye euh, Baye ki Thiam ci Ngaay la ko wax mu wax mako Serigne mudlo Dagana mu mag ma am xaritou Baye Fall mo gëna woor ñak ko té am ño ñoo xaritou ne Baye Fall rek lañu bañ fexe nañ ba amuñu ndax lool dafa am lu muy jëriñ nit xaritou Baye Fall rek da am lu muy jëriñ nit ndax mbaxam limu def serigne bi yeb yeen deg ngeen ko bo demé beyti da ngeen di gis fu mu doorun jaasi ji ci waxande yeen ñep gis ngeen ko mbaxan agon na ci deglu len dama len di wax defarub cheikh ibrahim mbaxan agon na ci bu gisee serigne touba day dawal fasam bëgg fas yu fekk serigne touba fekk serigne bi ci ci der bi mu bi ne day bëgg fas yu yek ci der tim serigne bi waaye bu ko jubé fas yu bañ fas wi lànk mu di ko forcer pour mu àgg ba tiim sëñ nga xam ne kooku àggoon na ci sànk foofu waaye bu fas wi lànkee sëriñ Tuubaa danaan suma raddatnahu asfala saafiliin ndeke doom aadama yàlla dana ko bind ci kawe mu mujj yées ñépp daal ne ndax mbaaxaan xool leen ni mu waree ci kaw fas ak ni mu umpalee ak ni ma fasam wi xamee te fas wi bàyyi ma la ay gars yi ku dem ba bàyyi ma ëpp la xam-xam ci yàlla waaw bàyyi may léeg-léeg ñu jubbanti nit ku wàcc di yonte yàlla noohin loo tax mu tudd noox moom la Cheikh Ibra tudde sëñ Abdou Sakkoor waaw ah noohin xaj la romb rek xaj bi salte yaram wi yëpp ràgg di di di nàcc mu ne mu seexlu ko xaj bi ndekete yàlla roof na ko wax mu ne ko noohin bu ma sañoon maay doon noohin nga doon xaj bii de yàlla mi ma def nii nag man lim ma def bég naa ci noohin di ko jooy jooy yu métti ngir xaja ko delloo si mbaaxaan moom ba mu ñëwee ne day jébbalu ci sëriñ bi murit yu mag yëpp dañ ne du fi amee micro bi mbaaxaan bi mu ñëwee di jébbalu sëriñ bi murit yi nga gis nii nit ñi dañ defe ne murit yi dañoo topp sëriñ bi mel ni ay dof waaye sëriñ bi bu ñu la waxee mag ñi ko toppoon mat gi ñu àndee woon ak moom ak gi def ci ñoom nit ñi sax duñ ko gëm murit yi ne sëriñ bi kii moom boo ko nangulee njébbalam it na génn kër gi ndax fekkee woon nañ la lim lem la defal sëñ bi ne kon yót leen ko Ibra Faal <laughs> ñu àndi mbaaxaan kër Cheikh Ibra moo tax mu ne ko yaa yóbbu mbaaxaan ca Xafoor tudde ko Abdul Xafuur jaamub yàlla mi nga xam ne dara dara dara dara tëwu ko mën naa jéggale lépp Cheikh Ibra dégg gis daa am ko mës judd ci kër Cheikh Ibra ñu naan nuñ koy tuddee te judduwul ci yoon ci dongo yi Cheikh Ibra ne tuddee leen ko Abdou rek Abdou Abdou Cheikh Ibra ëpp xam-xam ci àdduna seigne touba mom du lu kenn xam waxuma waxi seigne man seigne touba man munu ko lijeenti mune tudde len ko abdu ñu ko abdu nan mune ah, bu len ci tek dar di ëpp naaw def tudde len ko lim doon rek ndax nit bu judduwul ci yoon jaamu yalla la rek nee ab jaam rek koy len ko jaam rek motax seigne touba du nangu gisulo ben doom bu mu tuddi abdu kese <laughs> Abdul Ahad Abdul Samad Abdul Muhayminu Abdul Ghafour yooyu rek ngay dégg Cheikh Ibrahima ne tudd leen ko Abdou jaamu bu yàlla la waaye bu leen ci teg laahi nag ndax bu boobaa da ngeen andi coow de bu leen ci teg Samad bu leen ci teg Muhayminu bu leen ci teg dara tudd leen ko Abdou rek. mu yaay yóbbu mbaaxaan ci xafoor nag gis nga ba ñu àndee mbaaxaan Cheikh Ibra tudde ko Abdul Xafoor mbaaxaan ci boppam daa mujjoon Cheikh Ibra wutal ko bureau wutal ko téléphone wutal ko ay bëkk néeg xamone ngeen loolu boo mësaan dem njaareem ci kër gu mag gi man mii dama ko daan gis dañ lay wan li téléphone bi fam jaaroon bañ ko dindeegul ñu ne ko faal lu tax nga def nii mu ne na ngeen bàyyi nit ku kawe ci àdduna ñëw jox leen boppam ngeen wàcce ko ba ñam bàyyi woon ñëpp di ko ree bu leen ko def gis nga commande en général généralu militaire su retraité loolu tubaab bi sax xam su retraité dañ koy wutal ay bëkk néeg ñu ànd ak moom ndax dafa tàmmoon fu mu ne tël ñëpp ne nii su xëyee benn ngoon am sàmba bay romb ko won ko ne ko danga doon fontoo nit ñi day daal di dee day daal di torox te bu dee as gor la dafiy bàyyi ko moo tax dañ lay boole koy commandé mu mel ni yow yaa ngi ci commandement ba tey Cheikh Ibra noonu la defaloon baaxaan wutal ko biro te bindatul dara boobu folli ko bu xëyee Cheikh Ibra wutal ko téléphone di fay facture yi facture yaa ngi fi daan ne nii la ñuy def doomu aadama Cheikh Ibra moo xam nu ñu tëralee nit moo tax boo déggee ayub mbaaxan ci xafóor rek bu mu tax nga defene xam na xam nga li ñu wax ya tax ba xol ba dotul bur xolu nit moy lépp Cheikh Ibra xolu nit lay defar ba xor bi du xol bi du rëngi rëngi du bur xol bu bur nak mo gëna bon ci nit ya tax mu sanni yatu nguur jël yatu ngëm di laaj pexe gis nga ñaari doomu Lat jor dégg li seigne Musaa Ka wax ci ñom ci cheikh Ibra ci defaram tay ci olof rek la leen di wax li def ya tax ba abdoulay ñaxib lambi ndigal far la gaay jiiro mo ci xep tabax ay kër di joxe gis nga gaay bu ngeen gisatee dara dee leen ko laaj way yooyu fi mu nekk nii ñi ci xam dara bariwul léeg-léeg gis koo xamante ni ki ndëndam la yor yaa tax ba abdoulaye ñaxit ngay wangeetu di tëb rek te sax jéemoo xam sax li ñuy wax yaa tax ba abdoulaye ñaxit lam bi ndigal far na ko te sëñ ablaay mali la jóge du waa sénégal Cheikh Ibra àndi ko samp ko ci làmbi diini ba ku ne xam na ne jamono yi nga xam ne pour nga gis sëriñ bu am tabax sax yombul sëñ Ablaye sëñ Touba Cheikh Ibra daana ko daana ko tabaxloo ay ay niig ak i kii ngir sëriñ Touba booba jamono barke bi mu yor ak kattan gi mu yor ak lasaraar bi ak xam-xam bi kenn xamul nu mu toll Cheikh Ibra defaroon na sëñ Ablaye yaqin ba dëkk bu mu jaar daana jaar ci dëkk dëkk ba ñëpp sax bay dëkk bu topp moo tax fi ñu ko denc ci Thiès Cheikh Ibra dafa bari ay kéemaan de fi ñu ko denc ci Thiès ànd naa fa ak sëñ Cheikh Fall Baye góor ñu ñëw ba toll foofu mu ne ma njagar rond point bii ñu denc sëñ Ablaye yaqin ñax yaqin xam nga xam nga lu tax ñu denc ko fi ma ne ko déedéet mu ne bu amul woon ngërëmal yàlla bàmmeel bi dañ koy maasale ndax plan directeur bi nga xam ne plan directeur bi nga xamne mom la tuba bi defaloon fi mbedd rek fi waro na jaar ab tali waye rond point waru fee ne moom mu ñëw momu fi dëkku fi fak fofu yep ne mako mom nelaw ñu denc ko fa Cheikh Ibra Jar àndal nelaw ñu denc ko fa tuba bi ñëw ne dañ koy masalé ndax buñ ko bëggé def rond point wër ko lolu xajul ci budget ñu nekk ci di wax di wax di wax ba mu yàgg tubaab yi nekkoon dañ ko def rond point wër bi sëñ Cheikh ne ma bu amul woon ngërëmal yàlla dañ koy maasale te barabam boobu kat nit ñi xamuñu ne barab yi gën a sell yi nga xam ne kenn du fa delloo ñaan ci Sénégal barabu sëñ Abdoulaye Yakhine ci la bokk waaw ku ub bi ndigal kay ba noppi mu ne la gaay a jiiroo moo ci xëpp xëpp nag mooy dongo boo xamante ne bi dañoo taaj ndab net bisimilaay murit benn murit daal di ñëw daal di yëkkati ndab la dem sëñ mu Ka nee na sëñ Ablaay Yaxin la gaa yi jiiroo moo ca xëpp tabax na ay kër di joxe hmm? mbul ak i saq ak i sugeer ah dégg nga li ci Cheikh Ibra ne dañ daan falu naan yi butéel yaa tax ñu jébbul ca teel faal njege yaa rëyu pexe kon ndekete lii may wax ni jubluwuma ci nettali ay kéemaan génn gi Cheikh di génne nit ci toskare ak génn gi mu koy génne ci kenn mënatu koo dimbali ak jële gu muy jële nit ci kawe goo xam ne safara la ko jëme jëme ko ci suufe aku taalibe goo xam ne ci texe la ko jëme moo tax may nettali li kon loolu mooy mission Cheikh Ibra ci kaw suuf woy woowu nag buñ ko toppoon dana yaatu lool mu boole ci léegi la coow li bari ku ne naan Cheikh Ibrahima def ko morom hmm? waaye suñ Moussa Ka nee na li dale Ndar ba ca dakaar ba jàll yoonu saxaar mbër mu fi réy bañ naan la kaar Cheikh Ibra ngay laaj pexe loolu nag ëpp naa développé fii ëpp naa toj loolu ëpp naa toj bari na loo xam ne bu yëwee ne moom moo tax kon ñun nii ñu koy nii ñu koy màggale nañu xam ci lan la nekkoon génn ci lëndam génn ci toskare génn ci réy tàbbal la ci defal loolu dong nga taxoon Cheikh Ibra jóg xam naa ne nag eh, li ñu àndi woon kenn waxtaane ko munta sotti <laughs> ndax temps bi ni mu demee ak wax jeeg yooyu yëpp noo ngi ñaan sama borom mu dolli noo dimbali ñu bëggoon wax yëpp préparé woon ko ngir andi ko ngir waxtaani ko ak yéen xaju fi benn waxtu lañ ma jox te benn waxtu moom boo ci xasee wax benn baat bu nit mën a dégg jariñoo ko rek doy na yàlla na nu yàlla may dégg ak topp te xam ne nit war naa am fulla ju toll ni xam fi mu jëm xam li mu bëgg xam ni mu koy wute loolu mooy melaw Cheikh ndax sëñ Moustapha Xasida maa ngi ñaan ñëpp ñaanal ko gudd fan te wér ndax dafa am lu ma siq ak moom loo xam ne lii neexut a wax fii waaye fan yee dañuy waxtaan mu ne ma dinaa la génneel lettre bu Serigne Touba bind maa ngi koy wër bu ko gisee dinaa la ko jox lettre Serigne Touba ne Cheikh Ibra rasul waaye yaay xaadimul xadim te golo gu jóg ne xaadimul xaddim ndekete foofu palaasu jàmbur la de Cheikh Ibrahima mooy xaadimul xaddim mu ne ma ab naar ñëw na sëñ Moustapha Xasida ma ko ab naar ñëw na ci sëñ Touba ne ko cër na Birahim mu baax mii de xanaa sa taalibe la sëñ bi ne ko waaw waaw mu ko kay am nga taalibe bu baax bu sell wax ci borom daaru li ne ci moom ne ko Cheikh mii day sa taalibe la mu ne ko waawaaw mu ne ko Serigne Massamba day sa taalibe la di tagg tagg rek ndekete naar bi ci Cheikh Ibra la jëm dem bay lim ñëpp ne ko Yoro Fall nag sëñ Moustapha Xasida nee na ma sëñ Touba joxoñ ko ne ko mën nga ndox mën nga ndox mu ne ko déedéet mu ne ko yemal foofu tey ndox ku ko wattuwul gaa yi mokkal wolofal bi xam nañu sëñ Musaa Ka wax na ko bu yàgg ku ku xam ku xam géej na wattum ndox dox bi yeewul te xam ne ndox lewet na te wax ci biiram ku sàggan sànk fow <laughs> te doo set doo setal doo duy doo xam boromam ku suubu nag te aw yoonam ba feesal ci ay leeram ba far di duyal moroomam ndekete ndox du noonu de mu ne ko ndax mën nga ndox gars yi ku mënul ndox teel man ndox nag du jàng masaalik rek walla jàng laxdari di fontoo nit ñi defe ni Cheikh sa moroom la defe ne waa këram sa moroom lañu naan yaa ngi jéem a seet ci mbind mi noo loo xam ne daal dañ ñoo war a wax kuy Cheikh ndax daal sëñ bi bindul fuñ ko layal xanaa sëñ bi fi jaar ak cheikh ibrahim yëpp ñalay wax loolu ñom ñoko bëggu taxam waaye lepp leer cheikh samba jaar neen cheikh ibrahim moom raw nag maasam te deesu ko jot ba mba ko seppi mu raw yaram bi naam faal loolu leer kon nag nañ lu bu baaxa baax te sam sunu talibé bu baax te jotay ne jotaay gor gor lu ba buñ saggane sunu bokk Baay Faal du sàggane sa bopp de sàggane sa bopp ba nekkoo dara doonoo dara féetewoo fenn jëmoo fenn loolu moom du Baay Faal hmm? wàcc sa bopp ba say bokk bëggatuñ la sëb sëriñ bëggatu la waaw ndax yàgg naa ko wax ngeen di ko dégg ndax di tuddoo sëb sëriñ te fu la sëriñ dégg tiit maa la ko wax de am na ñoo xam ne fi mu nekk nii du ñu gis seen sëriñ mukk ndax bu leen di dégg di tiit ndax fuñ tàbbi def fa lu naqari yàlla nanu yaraat suñ bopp bañ koo sàggane bañ koo wacc bañ koo caaxaane jëmm kenn du ko caaxaane sëñ bi lu toll ni jëmm doomu aadama yàlla defal la ko nga nuru ko seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam bul caaxaane sa bopp loolu dafa rëy kenn du ko caaxaane nit nit nit du caaxaane boppam te ñu bari ak taalibe bi ak Baay Faal ca la ñuy jaare caaxaane seen bopp wàcc seen bopp sàggane seen bopp ba noppi di ko tuddee Cheikh Ibra góor góorgóorlu ñun ñépp jëf jii ñu doon wax nag jëf la Cheikh Ibra xam Cheikh Ibra xamul leneen képp koo xamante ne kii jëfoo ni ko sëñ ngi ñoom doon waxe sànq na la wóor ne siqoog Cheikh dara jëf rek la ñuy ak moom jëf ju sell ju rafet jëlee ko ci saw ñaq delloo ko ci sëriñ kon nañ góorgóorlu ñun ñëpp yàlla na sama borom may dégg ak topp te Cheikh Ibra defal ñu lu kawe suñu njort ñun ñëpp saahir ak baatin ñoo ngi siyaare ñu baax ñi fi teew ñëpp di sunuy wëlëre di waa kër sëriñ bi te teew ñii ñoom ñëpp suñu kóllëre lañu di siyaare suñu sëriñ su baax see toog di waa kër seexeeru Ibra Fall Babul Mouridina di ñaan suñu borom mu defal ñu tawféexu biir ak biti jàpp ñu ba ñu am ngërëmal sëriñ bi ñaan sëñ Muntaxa mu yàgg fi ak ñii liggéeyal sëriñ bi yëpp ndax kat université bii sëñ bi waxoon na ne bihaa yazulu laza wal jaxlu wal kabaru sëñ Maam Moor mi am digg nag moom nee na madrasatan jooju système la système la système mu jàngale bu buñ fa nar a def loolu lay wax madrasa waaye waxul jëmmi kii bi li ci sëñ Muntaxa bëgg bëgg ñépp mucc ci riir ak coono ak dang-dang kon nañ ci góor góor lu baax bu noppee jàmm ba ñu def ci liñ ci bëgg a def mu dox ay at yàlla nañ ko fekkee ñun ñëpp ne leen wóor ne ci ngay tàmbalee dégg ñu ne say sénégalais yi bàyyi nañu immigration xamoon ngeen lool université bi bu noppee ci ngay gis sénégalais yi commencé wan ginnaaw réew yi di ñibbi Sénégal biha yasulu laza wal jaxlu wal kabadu kon yàlla nañ ko sama borom dimbali ba ñu jëf ci jëf ju ju takku ba am ci ngërëmal sëriñ bi ñoo ngi gërëm waa Bilbao ci sama kóllëre ak ñoom ndax bu doon ay nit lañu ñu soppiku géej nañ ma kon bu yàgg lañ naan seen njaga yàgg nañ ko fee woor na nit ñi ndax nit ñi moom ñoom seen mbir sëñ Cheikh Fall Baye góor nee na foo foo bàyyi nit boo ñëwee doo ko fekk dañuy xewal ak di xeewil te yàlla du xewi ndax kenn ku mën a julli te jàngoo faatiha amul nan bañ a bokk ci ñooñu tey jàpp ngir sëriñ bi te waa Bilbao yi bay Fall yi sama diggante ak ñoom loolu moo ci am dañ ma jàpp ngir sëriñ bi waaye buñ doon soppi at mu ne ñu ne ah kooku de nekk wax dëgg yàlla lam daan wax rek lay waxaat kon maa ngi leen di gërëm ci loolu ci kóllëre googu ak woy googu ndax xeetu defin wu ne def nañ ko pour pour ma bañatee teew fii waaye ñoom ñu am fulla taxaw lànk kon maa ngi leen ciy sant di leen gërëm bu baax maa ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Ndiaga ah sëñ bi da ngaa bëgg ok. ñu jàng ginnaaw Fatiha. Ixlaas ak benn. waaw. barkeeloo ci jëmm ji doon wax léegi ci moom naar. waaw kay ah dégg ngeen li sëñ bi wax naar ngeer mi ma doon tudd léegi la sëñ bi ne ko fi teew na nga jang faté ak fukki l'ikhlas ak ben ñu barkeeloo ko ci jëm joju nga xamné ne def na fi ci yoon wi lo xamné ne am muritan koy soga def kon nak nako ku ne mu ngi tuddu nar ngeer nar ngeer khassida señ bi ne nako ñëpp def wa gis ngeen de mu am alhamdulilah people that are happy also. allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallam yàlla na ko yàlla jotale ci yool bi gis ngeen ni mbooloo mi toll ñu néew ko ci mës a gis ndax inna allaha laa yudiyu ajral muxsinin kuy def jëf seere la ko yàlla rek bul soxla nit ñi kooku jóge na fi waaye ñu ngi waxtaane mbiram fii sëñ Touba defal na ko fii ci Europe loo xam ne benn murit amagu ko fi te gis ngeen ñaan gu toll nii ñëpp ñaanal ko kon gars yi liggéeyal sëñ tubaat te muy dëgg rek a jërë ngeen jëf. kan ah sëñ Mouhamadou Ndiaye. waaw waaw jërëjëf. waaw ah, sëñ Mouhamadou njaay dafa ñaan ñu soññee ci daayira daayira subula salaam bu Bilbao noo ngi leen di xamal ne daayira yi sëñ Touba yi ak kër sëñ Touba ak jotaayu sëñ Touba yi moo nu fi tax ne bés bu ñu leen woyofalee jafe-jafe ba gën a mag ci àdduna danañu gane si te duñ ci mun dara ndax kër sëñ Tuubaa ak daayiri sëñ Tuubaa yi ñoo ñu garanti fii ci réew mi ñoo ñu fi tax a nekk na ngeen xam loolu yàgg naa wax ne koo xam ne tubaab dafa ñëw sa dëkk rey sa maam fii ku fi tubaab reyul maamam amul. koo fa gis muy xoggali ko di wéy sama maam ak yooyu nee ko fa mu ak tubaab bi ku dul sëñ Tuubaa rek fa tubaab bi mu ak yow xam nañu nangu sunu alal def nu ay jaam ñëw defare ko seen dëkk te mënuñ ci dara sëriñ Tuubaa ñëw di fayu ñëw ba ci seen dëkk yi nga xam ne ñoom jàppoon nañ ne kenn kenn kenn ñemewul lu kenn ñemewu fi am kër wala nga taxawal fi mbolo muy liggéeyal serigne bi sëriñ bi ànduñu fi ngir ñu fayul ko fayul l'islam fayul xeetu nit ku ñuul yépp dayre yi looloo ko taxa a jóg te it naa leen xamal lenn de gis nga daayira fépp fuñ ne fii daayira sëñ Tuubaa la képp koo xam ne yaa ngi ciy teew yaa ngi ci mucc ci àdduna ak alaaxira ndax yàgg naa leen wax ne leen bés bu set ngeen seetaan télévision gis gaynde buy rëbb ni muy def gaynde moom buy rëbb kiwel yu ànd bu leen song loolu loolu mat naa xam de yéen ñëpp a seetaan ci National Geographic gaynde bu séenee ay kéwél junniy kéwél benn gayndee leen man waaye day taxaw di leen xool xool bu yàgg te kat sëñ Cheikh Fall góor nee na ma gaynde bët bi dañ ko mooñaaleeg ismullaahi bi ñuy wax xaxaar moo tax lu mu xool bu yàggee loolu ay cëram day bañ ba ko fa fekkee du mën dara ngeen gis gaynde buy rëbb day taxaw di xool kéwél yi waaye nee nañu foofu gaynde daa am lu muy xalaat day def tafakkur ci boroomam danaan yàlla de wax na benn aaya ci alxuraan waxte waxtasimu bi xablillaahi jamian wala tafarraxu nee na gaynde xam na lool de ne jàpp leen ci buumu yàlla gi ànd te bu leen tàggoo ne loolu tax muy taxaw lu yàgg di xool daal ne waaw bokk yi ànd te tàggoo ñu su ma fa demee lu ñu niiw niiw doole kàttanu yàlla laa fay fekk ndax ñu ngi ci ndigalu yàlla ne loolu tax muy xool lu yàgg de ba mu yàgg mu ne waaw nu may def te xiif naa moom gayndee wax de mu ne naa fexe ba kenn tàggoog mbooloo mi rek kooku moom moom laay reere wala ma añee ko mu ne nu may def mu ne inna seytaane yu xawifu awliyaahu am tiit laay damay jékki-jékki rek ñu bëri tàbbi seen biir am ci bu tiit ndeysaan daal di génn mbooloo mbooloo mi àndaat dem mu bàyyi mbooloo ma ne topp kenn ki di ko àlli xam ngeen lu ñoo àlli Manam day dox diggam ak mbolo mi di di ko ni nii di daw ngir mu gëna sori bokk yi gëna sori ndigalu yalla su demee dem dem ba xamné ne ki kii na ci li yalla waxal waxtu simu bi abdullahi jameen wala tafara te moy daayira ne mu jadd jël ne kok do fa fekk dara murid bu bëggee mucc dëgg du beru day fekk ñi liggéey serigne touba mu and ci di and ak ñom suba ngor ndax loolukat kat la ci moom gisoo fi ne tubaab yi maa ngi leen di xamal ne fu nit dugg xam nañ kenn ku ni ci ñun fa ngay dugg ak fa ngay génn yëpp xam nañ kiñ ci gën a fonk nag mooy ki ñuy gis muy dugg ci kër sëñ Tuubaa di ci génn kooku doo gis mu ñu sonal ndax daje nañu ak sëriñ bi xam nañu sëriñ bi xam nañ ne ku koy liggéeyal kenn du la laal tubaab yee ko gën a xam ñëpp. te ñun nañ xam loolu ci suñu bopp waaye boo beroo di wane mënum lëmm doo dem daayira doo jaxasoo murid yi na la wóor ne liy wër tey lore yow lay wër te bu lay gis nga di la jël mucc mucc yëpp mu ngi ci nekk ci biir mbooloom sëriñ bi ànd ak mbooloom sëriñ bi di liggéeyal sëriñ bi nañ ko xamee noonu de pour sa mucc bopp la du pour liggéeyal sëriñ bi kon nañu fonk daayira bi li sëñ mën njaay wax lu mat di soñé la serigne Cheikh mbacké la mu waxoon ci daayira lool wax nañ ko bataay waye dañ leen di andil wax ji ngir ngeen dégg ko ko ci wax nak am ño xamné bo leen waxé ñu lay né wa man ma ngi liggéeyal sama serigne yoyu mom nangam déet déet serigne Mor Fassa baxam waxon na lu mel non de nañ ko wattandiku tay and nek ben te boole suñu xol te jël suñu ñak diko def ci liggéeyal serigne bi ak kër serigne defe naa ne loolu doy na doy na képp koo xam ne ki nit nga koo xam ne yedd nañ la dayri yi ak ànd ci ànd bi doon benn defaluñ ko sëñ bi suñu bopp lañ koy defal na leer ci la ñuy mucc ñun ñëpp kon yàlla nañu yàlla may dégg ak topp ci barkeb sëriñ bi daayira bi ne ci ñëpp góor góorlu ndax kat nee naa leen fii man li ma jaaxal mooy am na koo xam ne li muy dépensé ci téléphone rek bu ko doon joxe addiya doon murid sadio te ka téléphone yu ñàkk fayda rek nga ciy wax jënd crédit naan reer ngeena ñu naan la waa ñoo ngi waaj taaj nga ne ko tiimale ko ma xool <laughs> yéen kat <laughs> yéen ngi yéen a ngi xiwlu kat yu ñàkk fayda yooyu léegi di euro nga ko jënde sëñ mun njaay ak sëñ njaga mii ne joxe leen cinq euro nga ne mën laaj te nee naa leen yëf yi bu demul ci sëriñ bi dem ci docteur yeeg avocat yi dégg li ma la yi ak docteur yi ñu ngi ñuy xaar buñ joxul àddiyee sëriñ bi liggéey luñ sëriñ bi li ëpp dañ koy fajoo moo tax gars yi koo ci gis léegi li mu yor ci ay boîte ki ordonnance kenn xamul nu mu toll ba noppi dañ lay laaj ne la weer wi sëñ sëñ sëñ mun njaay nee na ci kattanu sëñ Touba ñëpp juboo nañu weer wu nekk 10 euro lañ la laaj nga bañ ñu daal di téye sa këyit ñu ne la wutal avocat avocat bi ne la 1500 euros waaw te barki sëñ Touba boo ko doon jox ci sëñ Touba këyit gi duñ ko téye loolu moom murit dëgg yi xam nañ lool sëñ Touba fu dara ne moo ko fa bàyyi man maa la ko xamal. fu dara nek rek moko ko fa baye lu la moom mom ko setan waye lu bëgg yalla def ko te ñu ngi koy amé ci liggéeyal ko gis nga fim nek ni lima doon faral di wax gaay banko mat yi lañuy lañu fexé ñu ba mu bari xaalis waaye mag ñi ñom banko mak lañu yoron ñom banko mak moy touba li nga yor rek fo soxla mu fajj ko mu jeex do jadd sax di def ay numéro fi nga taxaw rek lay fajj sa sëñ Tuubaa gaawee noonu ma man leen banku mat mooy banku sëñ Tuubaa moo gën banku mag banku mat léeg-léeg nga roof fëgg dara du génn ñu ne la jeex naa waaye sëñ Tuubaa loo ko lebal mu fay la loo xam ne gàcce nga ciy am yow kon nañ ci góor bu baax sama bopp laa ci soñ di leen ci soñ jëfal sëriñ bi ci la si murit di àggee fa mu war a àgg sëriñ Cheikh Ndigal Fall dafa am waaju ko ne ñoo bokkoon daara maak yow waaye mbooloo mi la topp ak yëf yéeg yi yëpp mu ne ko danga may jox bayre bi nga sangoo sëñ seen digal ne ko ban bayre yéen ndeke xamagu leen bayre mul mooy liggéeyal sëñ Tuubaa moo gën a gaaw bu fuuf sunguf waaw ndax am na waajoo xam ne yii fanweeri ndomba amoon na ko takk ko ci ndiggam waa muy dem di ete ji defe ne ndomb yee koy dimbali muy ete ji fu sori bool bi muy def ndomb yi mu fàtte ko suufu lal bi dem oto ji lu ëpp 1000 kilomètres saa bu xëyee cim tiit lay ne waaye nag bis boobu euh, euh, été boobu moo dàq ci éteem mune mune mu ndomb yi dal buma agge dañ xamne ne ndeke liggéeyal sëñ bi rek woor waye tak tak tak tak tak tak ba yow ci sa bop bu ci ben ndomb réeree nga defe ne dara du tay hmm nañu delo lepp sëriñ bi te xamne yoy bax na de waye gis nga fimne mu bi kawé lepp nañ xam loolu nak mu jeer jaga alaykum wa